si téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñetti test yu ñu def fukk ak ñett ñoo si positif bon dog ñoom ñoo am jàngoro ji si fukk ak ñett yooyu fukk ak ñaar ay cas contact la ay patients yu ñu doon suivre benn bi nag mooy cas boo xamante ne transmission communautaire mooy ku am jàngoro ji te xamuñ fan la ko jële ñu yëgal leen ne fukki ak juróom patient yu newoon hôpital wér nañ bésu tey bi dañ leen génn hôpital ci bés bi ñu yëgal tam ne ñi nekk hôpital ñu ngi yëg tan bu baax bu ñu xayma ba mu demaree ba léegi ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ñetti cas la Sénégal déclaré ci ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett yooyu téeméer ak juróom fukk ak ñaar wér nañ si ñaar génn lañ si àdduna kenn ki ñu évacué ko bon nag téeméer ak ñaar fukk ak ñett ñoo nekk hôpital ñu leen di faj ministère de la santé de l'action sociale mu ngi demander population yi ñu respecté bu baax ndigal yi ñu leen jox pour que ñu mën a daan coronavirus bi maa ngi leen remercier